xaar bis ba ma jox ko Ousmane Sonko moo tax ñuy wax yéen ñi nga xam ni seen carte électeur yi ñi ngi nelaw ci préfecture yi ak préfecture yi na am fulla ju day ni ngeen wax Ousmane Sonko ne ko fee mu nekk pale bii mooy place biñ ko bëgg a teg te lii tax mooy ku nekk cotisé cotisation bi nag mooy ku ne tey sa carte te waajal muy benn ñaareel bi mooy saytu élection saytu élection ñun mënuñoo fexe ba matal ko li koy matal mooy képp ku nekk ci ñun jàpp ni bureau de vote ba nga ne yaa fa war a doon suñu bët yaa fa war a doon suñu nopp ndax foo nekkul ñu def fa loo xam ne lii ëllëg du doon di lay jariñ maanaam fu ñu nekkul ñu sàcc fa élection yi wax ji dañ koy gàttal te mu leer fu ñu nekkul fu ñu xoolul fu ñu amul représentant fa foofu la ñuy sàcce élection yi lii may wax nag du lépp lu ñu dund la li ci des ci gàttal suñuy kàddu rek mooy ñu wax sénégalais yi ne leen ñun dañoo waxoon ni dañuy investir Ousmane Sonko ñun ñi ñëpp fee ca ACAPES ñu woo suñu département yëpp ñun waa coalition bi suñu militants yi suñuy sympathisants ku ci nekk dagg sa paas teel a jeexal sa añ pour ne tey jii ci bis bii da ngay taxaw fii ñu investir Ousmane Sonko ñu ne ñu alam mukk du fi amee. ñu ne la bàyyi nañu la seen mbedd jël leen am nañu sañ-sañu daje ci bërëb boo xam ne du moomeelu kenn moomeelu ku fay la ñu fay dem toog fa. ñu fekk ñu fa ak ay takk der nañu alam mukk du fi amee dàq ñu foofa ni ay baadoo la noom nangu ni doxandéem du tabax réew pas-pas boobu nag moo tax ñu ne danañ leen ko bàyyee waaye tey 31 décembre danañu daje pour investir Ousmane Sonko mooy waral suñu toogaay bii mais bu noppee lii li ñuy laaj mooy ñu wax ni lii di xew benn ci li ñu bëgg xañ danañ leen wan ni ñun suñu pas-pas romb na fépp foo takk ñoom seen pas-pas ngir yàqal ñu ñun suñu pas-pas pour defar Sénégal romb na leen fanweer dem loolu moo tax ñu wax ñépp ne leen vingt ci tey jii nag ku nekk kër yëpp waxuñu kenn dëpp cin waaye ku nekk am nga sañ-sañu jël sa ko wéeru cin concert de casserole la laaj bëgg nag mu yegg fee ci Ousmane Sonko bëgg nañu mu yegg ci Bassirou Diomaye Diakhar Faye bëgg nañu mbokk yi nañ ko fëgg fëgg fëgg ba lalu bépp détenu riir mais yemoo ca loola nañ ko fëgg fëgg fëgg ba kenn du dégg kii fiy jógee di dem ñu fas yéene koo diral cin kenn du dégg li muy wax ndax soxla ñoo tàggoog moom salaamaaleykum wa rahmatullah kontaan. jërëjëf euh, honorable député maire Birame Souleye Diop kàddu yi am na solo fàttali rek plan d'action bi ci 31 décembre bi ku ñu xañ suñu solos mbir ñu xañ la sa solos mbir donc nag na na kubéeru kaw diir yi riir na casserole yi riir ba àdduna ñëpp dégg ko ñu xam ni am nañ lu ñu métti. waaw c'est le seul message à la nation en attendant euh, sénégalais yi dem jëli seen carte ndax lu am solo la ci li ñuy def li ñuy jeexalee xew-xew bi ñu ngi ci càppaandaw gi mooy euh, euh, écharpe yi nga xam ni moom la ñu fas yéene woo ñi nga xam ni ñooy membre te bokk ci coalition Sonko président 2024 ñu fas yéene ko def ànd ceeg Fatima Meng ak ñi nga xam ni ñoo fi teew te bokk ci coalition bi ñu fas yéene leen woo kenn par kenn ñu ñëw fii jox leen ko dañu commencer ak euh, suñu frère camarade monsieur Moustapha Mbaba Girassi moom mi nga xam ni moo jiite set waaw euh, woo honorable député euh, Guy Marius woo monsieur Mamadou Lamine Dianté moom mi jiite mouvement pour une citoyenneté engagée àndu ndawnle woo monsieur Ousseynou Faye M2R <laughs> donc moom su noppee dina agsi woo monsieur Ousmane Diouf moom mi jiite APJS woo suñu sœur euh, madame Maymouna Bousso moom mi jiite force citoyenne waaw suñu frère euh, monsieur seenu fay m 2 jox ko mu ñëw taxaw ma jëy Mbóoj mi jiite yoonu askan wi doyen ma jëy Mbóoj nekk mag mu am solo ci suñu liggéey di ko ñaanal yàlla gudd woo monsieur euh, Mouhamed docteur RDS woo suñu camarade euh, Damboj coalition le peuple ñuy woo monsieur Ali Guèye moom yi nga xam ne moo jiite Front National ki ci topp di sëriñ Gueye moom mi jiite parti PAS moo ñu nar a jox PAS bi ñuy yóbbu ca ndam li 2024 allah woo nag ki nga xam ne ku ñu ràññee la muy tonton Ayib ni ko xale yi di waxee ci réseaux sociaux yi mandataire du candidat président Sonko <laughs> ñu ñëw ci ex yi ñu tuddee ex yi les ex candidats Eh, honorable député euh, woo suñu frère euh, El ex-candidat di woo ki ci topp monsieur Birame Souleye Diop honorable député maire président du groupe parlementaire donc ñi nga xam ni ñoo fi jot a teew ci euh, euh, bokk euh, ci coalition bi ak niñ ko limee sànq nekk na ñaar fukk ak juróom parti kuréel yu ko bokk te incha allah am nañ yaakaar ni coalition bi dina gën a yaatu ndax gaa yaa ngi jege si di fugg di fëgg bunt yi ndax ndamu lii di am en 2024 incha allah sénégalais yépp ci ko bëgg bokk rawatina parti yeeg mouvement citoyen yeeg mouvement associatif yi donc fa yéene jeexal jotaay bi di di sant ñëpp. Seydou Guissé sàll moom mi jiite parti Wareef mi donc fii lañ ko yemale mbokk yi fas yéene ko tëj ak la photo waaw woo nañ président Ousmane Sonko jox nañ ko écharpe moom itam chaise bii moo ko jëmbal di ñaan yàlla mu génn gaaw ñëw toog ci en tant que cinquième président de la république bu Sénégal. fi ñuy tëjee rek mooy benn vidéo boo xamante ni dinañ ko euh, wane mu jëmaat rek ci président Ousmane Sonko ak taxawaayam ak li nga xam ni euh, mooy géewu politique bi euh, bu ñu ci noppee dinañ ñëw def li nga xam ne moo di photo famille bi di leen fàttali nag naka sorool yi riir a riir bu baax baax